La ilaha salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu wér di leen jox sa wàccuwaay ñu ngi fii si Yarax Kapa en trois di waajal suñu dixième caravane projet Kër Serigne Touba. ñu ngi jox kàddu bi Serigne Abdou Lahad Dieng président relation extérieure mu am ay kàddu yum ci soññee bu baax. aouzu billahi samiin alim mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Cheikhul Khadim Mbacke. noo ngi nuyu mbooloo mi ñëpp kenn ku ci nekk ci tur ak sa sant di nuyu waa commission Kër Sëñ Touba gi nga xam ñoo jàpp jataay bi mu doon fukkeelu jataay boo xam ni dañ ciy ànd di dugg ci biir gox goxaan yi di gëstu mënutu Sëñ Touba yi di leen saytu di leen xamal liggéey bi Sëñ Touba bii nu engagé tàmbali bi ak fi ñu ci toll ak fi ñu bëgg mu àgg fa tey yii ci dimanche ji nag dëppook la 4 juillet mu doon caravane bi nga xam ni caravane bu mag la ndax juróom-ñeenti caravane yi ko jiitu woon yëpp dañ koo jël dugal ko ci caravane bi muy fukkeelu caravane nga xam ni dañoo xool kilifa yi nga xam ni dañ leen a jéggaloon sax ñu leen ñëpp ñu ñëw ñu ànd ak ñun ngir mën a leeral mbokki taalibe yi nga xam ne daanan yëg liggéey bi xam fi liggéey bi toll ak nun ciy taxawee ak yéen a ci am ak pas-pas bi tey jii nag kenn ku nekk xam na ni li tax mbooloo mépp takk mooy dañoo yëg ni sëñ Touba defal nañu tawféex tawféex yi mu ñu defal mooy lu nu weesu ci caravane rek caravane ba ca topp moo koy gën te moo koy gën a riis te ci lay ëpp teraanga yi sëñ Touba te loolu li muy jàngale rek mooy li sëñ Touba waxoon ni sama tey ju nekk day gàccal sama démb loolu ñun liggéeyub sëñ Touba la boo xam ne yëg nañ ko gis nañu ko li ñuy liggéey nag te def ci te mooy kër sëñ Touba gi rek kër sëñ Touba fépp fu ab murid nekk rek dañuy jàpp ni waajib la ci yow nga taxawal ko fa ndax sëñ Touba bëggoon muy jàngale ak yare ak jële nit ñi ci jaamu lul yàlla yóbbu leen ci jaamu yàlla jële leen ci ñàkk koo xam yóbbu leen ci xam ko jële leen ci jëf te yàlla taxul yóbbu leen ci jëf te yàlla tax loola rek mooy baasu kër Serigne Touba moo tax ñu takk suñuy laxasaay takk suñuy ndëgg takk suñuy yitte ànd ko jëwriñ ci Cheikh Mamadou Diouf mi nga xam ne moo ko jiite ak sëñ Soxay bu Mbàkke ka mi nga xam ne moo topp ci moom ngir nu ànd tey jii wër dëkk bépp na ñëpp xam ne daal tey foo am murid nekk fas xamal la projet bi fi mu toll tàllal la suñuy loxo nga jox ñu addi sëñ Tuubaa ñaanal ñu ba balaa déwén ñu fekk ñu am yéene ci lu ñu bëgg mu mat ñu am terrain bi tàmbali koo liggéey bala moo def ay weer yu néew ñu liggéey ko jël caabi ji yóbbul ko Cheikh Mahamadou Mountakha mu yebal kenn kama yebal mu ñëw tijji si ko ñu fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci liggéey bi loolu daal mooy solo si nga xam ne tey jii moo na fi tax a dañuy Cheikh Mahamadou Diouf jërëjëf sëñ Abdou Lahat euh, kàddu yi am na solo lool di rafetlu teewaayam ci euh, caravane bi tey amoon na ngant ci programme yi ndax ku ne xam na ni day yëngu ci waxtaane suñ Touba amoon na ngànt waaye nag teewaayam day wane rek dayoo liggéey bi dayo bi liggéey bi am moom la teewaayam di wane mu am taxawaay yu rafet yu mu am ci liggéey bi tey jii mu teew ci caravane bi nga xam si nii liñ ci jublu mooy taxawal kër sëñ Touba fii te yaakaar naa ni loolu buñ ko buñ ko defee moom mii la ñuy jàppale ndax daayira Munawwirus Sudûr bi lépp lu jëm ci jàng jàngale ci loxoom la nekk kon kër sëñ Touba googu yaakaar naa ni moom lañ koy defaral kon suñu yéene ñun ñëpp mooy li nga xam ne sëñ Touba daf ñu ko lebal te ñu koo fay ñuy jéem di dawal par tuuti ba keroog ñiy mën a am lu sedd xolom te loolu lii tax mu am mooy ñu taxawal barab fii boo xam ni incha allah dañ ciy mën a defaroo defar ci suñu njaboot dund ceeg ñoom ba bàyyi koog ñoom ba ilaa yow mi diin muy doon barab boo xam si nii day defar nit ba mu mel ni Sëñ Tuubaa bëgg lii rek mooy suñu yitte lii nag yaakaar naa ne képp koo xam ni ab jullit nga war naa neex sa xol war na laa yitteel moo tax ñu ngi ciy woo ñëpp liggéey kër Sëñ Tuubaa gi bu ci kenn seetaan ku am dërëm na ko ci def ko am xalaat na ko ci def ku am ay jéego na ko ci dox ndax liggéey la boo xam ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha da koo validé ba noppi ñaan yàlla mu sotte jàmm waaye wax na wax nañu ni na ngeen dalal seen xel te xam ne dina sotti kon liggéey la bu Sëñ Tuubaa validé kon daal bëri ko ci mbaltara rek ku puus mu dem ku puusul mu dem kon rikk waaye nañ ci sagu sagu gi nañ ci teg suñu loxo mel ni ñoo koy puus te fekk duñ ci lenn ñi ngi sant ñëpp di sant sëñ Abdoulaat ci taxawaayam di sant te muurloo ko ànd ko mbokki julli yëpp ànd ko suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñ sëñ Mouhamadou Diagne ak jëwriñ Baye Saliou Diagne ak jëwriñ sëñ Modou Niang ak mboolem ñu topp seen ginnaaw ñëpp ñu ànd koog ñoom mu sotti te ñu muurloo ko barke sëñ Touba jërë ngeen jëf kàddu yi rafet na lool jërë ngeen jëf jërëjëf kon sëñ soye bu bisimilah Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum ñuy ziare ñëpp di sant ñi jiitu ci kàddu bi di leen ñaanal taxawaay bi rafet na te it euh, li ñu waroon wax lépp wax nañ bi xanaa di soññi suñu mbokki taalibe yi ak suñu magi taalibe yi ak képp koy julli rek ñu ngi woo ñëpp ci dizaine caravane bi ak li des ci liggéey bi ñu ànd ko liggéey di ñaan yàlla lépp luñ ci sàkku ci yiw nañ képp ku ci def dërëm daal yàlla na ko yàlla ñu ci fajug aayu zaahira no baate jërë ngeen jëf asalaamaaleykum barkeel kon jërëjëf yàlla na yàlla barkeel ñu ngi ziyaare it Capa TV mi nga xam ni caravane yi ku ko miin bëgg koo gis bëgg koo toppaat fa ngay ñëw ngir topp ko ba seen liggéey rafet nañ ngi leen di ñaanal yàlla bu liggéey bi ak yàlla na ngeen filma kër gi nii man koo jàll ci mbooleem gox yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak jërë ngeen jëf sunu xol sedd na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar bu wér a di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi fii si Yaraax Kappa Entourage di waajal suñu dixième caravane projet Kër Serigne Touba. ñu fas yéenee jox kàddu yi suñu jëwriñ yu baax yi ñu sànni ci ay kàddu yu baax di ko jiital si di ko jiital si président euh, jëwriñu Kër sëriñ Touba bi Serigne Mouhamadou Diagne ñu ngi koy ziar bu wér a wér di ko jox jotaay comme ñu ngi jox kàddu gi jëwriñ Diagne. Uh, jëwriñu projet uh, Kër Serigne Touba bi tamit di jëwriñu Munaayul Sudoor ñu ngi koy jox kàddu gi mu jiital kàddu salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla baax di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Ahmad Bamba Xaadim Rasul suñu yaakaar di uh, ñaanal xalifatul am Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàlla sàmm te dëgëral ko te àggale ay naalam yëpp dañu ànd koog moom. di sant yàlla bu baax a baax a baax ci liggéey bu màgg bii nga xam ne moom la jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk Touba Yarax yëpp ak mbokki taalibe yi fi nekk seq waaye da ci dox doxeenu rëy doxeenu am solo doxeenu Pastef doxeenu njàmbaar doxeenu bëgg a liggéeyal sëñ Touba ñu ngi ñaan ci kàttanu suñu borom yàlla na yàlla sàmm mbooloo mi te aar ma taxaw ak samay kilifa samay jawriñ di sëñ Saliou Diagne ak sañ Mor jawriñu mu naawiru sudoor bi nekk yaraax eh, fële tefes di jàmbaar ci liggéey bi di borom Pastef di ku am ak taalibe te ku jàpp ci liggéey bi lool ñu ngi ñaanal mbooloo mi yëpp yàlla na yàlla sàmm te aar leen di nuyu sëñ Momadou Diouf ci Pastefam ci njàmbaaram ak sëñ Soyebu mi nga xam ne moo topp ci moom ndax ñëpp xam nañ ne ne biñ jëlee liggéey bi te ko seen kaw man ñu ngi ciy def ba def ci loo nii seen jot sax mayu leen ko waaye bëgg sëñ ak fas yéene liggéeyee sëñtubaa yi gën a jëm kanam moo tax bañ ko commencé ba léegi yendaluñu fanaan lañu saa su ne lépp loo xay lu koy jëmee kanam lu koy gën a taaral ñu ngi ci guddi ak bëccëg sonnuñu ci taaye lu ñu ci découragé ñu chaque jour seen pastéef ak seen ak njàmbaar day gën a yokk saa su ne ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba yàlla na yàlla sàmm yàlla yàlla aar leen te musal leen ci ndok ak saytaan ak pakk-pakkam ci barke Serigne Touba salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam billahi di sant way jur di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di sant xale yi nga xam ne tey li nga xam ne moom la ñu jublu tey muy nekk ci ndigal yi Sëñ Tuubaa yi rek muy guddi muy bëccëg muy suba ah di ci woo ñëpp rek muy nekk na loo xam ne nii du waaye Touba Yarax rek ñoo xam ni waa Dakar yëpp ci la ñu bokk kon noo ci woo ñëpp di sant yàlla rek comme ni ñu ko mën a wax di sant xale yi di leen xamal ni lii xale yi rek ñoo ko def ñun ñii ñoo ci gën a nekk mag la ko commencé fukki at ba fanweeri at ak juróom jëf ju ji jii muy ndigal lii xale yooyu rek ñoom ñoo ko fas yéene jëfee kon na ngeen xam ne magi yaraax itam noo ngi leen di noo ngi leen di noo ngi leen di gërëm di leen ñaan yàlla sama borom yàggal leen fii ndax lépp ñoom la nag xale yi ni ma gisee tey ji ni ñu bëggee sëñ Touba nekk ci rek sëñ Touba rek muy guddi muy bëccëg wax dëgg yàlla liggéeyu mag ñi la kon nag ma ngi ñu ngi leen sant wax leen gërëm bu baax a baax a baax di ñaan yàlla sama borom li ñu bëgg muy kër kër yi nga xam ne moom la ñu bëgg muy kër sëñ Tuubaa fii ci Yaraax dañuy ñaan yàlla sama borom defal la ci lu kawe suñu njort suñu yittee suñu bëgg-bëgg suñu taxawaay suñu dox suñu lépp rek bëgg bëggal kër fi señ Touba fi ci Touba ya daal loolu daal moo nekk ci xol mo nek ci jëmi mo nek ci yitte moom rek mo ci yitte di ko woo murid yëpp rek talib yëpp ñu leen ci wo ñi ngi wo ñëpp rek bayyi wuñu kenn kon nag ñoo ngi gattal fofu kàddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullah dari di sera genn jaagal jaarali aouzu billahi mina shaytan rajim mujjé yaa bi loolu mooy programme bi min ashaytan rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin te incha allah ku ci nekk rek na ma ko waxee woon nga sellal sa yéene. nga xam ne dëgg la karawaan la waaye liggéeyal Sëriñ Tuubaa lu ci waay fas suñu borom na la ko defal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. kon nag mi ngi noonu. aja kon ngi nuyu mbooleem xam naa ni mën nañu daal wàññeeku rek. di leen ziar bu baax di leen sant di leen jaajëfal bu baax. fas yéene di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral cëram ba liggéey bi nga ne ni moom lay liggéey Seexul Xadim yàlla kattanal ko ci sagom tey nag comme ni fi gaay yu baax yi jaar waxee rek mooy projet Kër Sëñ Touba bi ñu ta na taxawal ci yaraax euh, moom moo waral jataay bi tey ñu woo ci mboolem waa yaraax yëpp képp kuy julit rawatina ab murit doonuk taalibe ñu ngi la ci woo moom lañ nekk nii di waajal dem nii bu ko defee képp koo xam ne rek yàlla mën loolu la ko ñu ngi lay woo ci bis bi bu ko defee ñu ngi sant ñëpp di sant jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ngànk liggéey bi tàmbalee ko ci seen Mour Diagne jàpp ci Mour Diouf ak mboolem ñu topp seen ginnaaw rek dañ leen di jaajal bu baax ñaan suñu borom bii ñu tàmbali yàlla na àgg ak jàmm am nañ ci njort bu baax ngir ni sëñ Touba moo teg loo xam ne dina àgg kon ñu ngi nii ñëpp di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngeen jëf ñu ziaré ñep di balax ñep comme niko suñu suñ ni waxé rek wa li moom mu nek lo xamné lu rëy la suñu dëkk bi ci dëkk bi nek yara kon ñi ngi ñaan xam wax ji mo xamna ru gudd wa ñi ngi ñaan suñu borom dafa ñu taw bu baax baal baax nuñ ko bëggee rek suñu borom dafa ko bu baax lépp lu baax ñëw rek lépp lu bon def kon ñi ngi jéggalu ñep di balax ñep di len ziaré bu baax di len ñaanal bu baax ci yité bi baax baax kon kenn ku nek na dina baye xelam ñu gëna gor gor si liggéey bi xamné liggéey mom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek ñu ngi baax ñu ngi jégalu bu baax si kàddu bi jërëjëf sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér ñu ngi ñaanal ñëpp tam te wér jërëjëf. Euh, salaamaaleykum monsieur euh, monsieur le maire futur maire Alpha Thiam euh, dañu doon laajte nag sa teewaay si bi projet ko sëñ Touba salaamaaleykum waa mbokk Capa TV salaamaaleykum waa Yarax donc tey rek dañoo ñëw teew ci caravane bi. caravane bi nga xamante ne euh, c'est la communauté mouride bu nekk au niveau de Hann bel moo ko initié pour vraiment euh, taxawal liggéeyu Serigne Touba bi à savoir euh, vraiment mooy mosquée bu nga xamante ne kër Serigne Touba bu nga xamante ne moom lañu ko taxawal donc ñun aussi en tant que citoyen aussi en tant que mouride en tant que de musulmans aussi ñoo jàpp si vraiment participer aussi ci ci ci ci caravane bi donc pour pour vraiment sensibiliser aussi un peu nit ñi jullit yi vraiment ñëpp ñu nekk ñi nga ne ñu ngi yaraax vraiment ñu jàpp si liggéey bi moo tax daal ñu ñëw pour pour pour teewee ko daal. Euh, merci beaucoup seen présence apprécié nañ ko bu baax parce que lii rek lañu mën a am pour ñu mën a jàppalante. Seydina Fall Aliou borom Daaru Fall boo ko nu wasatee neel ci digg bi nuy waxtaan yow mun laa wóote foo fi yem nii fee dama ndijoor simaare càmmoñ yaara jaay yow aji yaakaar sama ku nekk lii ñeel ma ne yàlla ni ma doxan dem rasulullah ni ma doxan dem ahlu badr ni ma dox dem saabatu rasul ni ma doxan dem alquran ni ma doxan dem يثور غاتبه وهو الوسيلة سرمدا وبالقلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البر السير ينتهى الله والمختار وهو منير نبيل دا تعب لينعسى هنا وانت بمدهك التلاج يدير خير رولا دعني إيمان بما أهو به للبر أنت النذير فذا الخالق تهديدا أو بي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما زال ولا سعد نهم بدور ومنه صلاة ما صلاة من legedi ci legedi ci legedi milliard baax na million baax na junni baax na ñaar téeméer baax na téeméer baax na juróom baax na fukk dañuy jël xeebuñu yëbuñu yéenay joxe barke sëñ Tuubaa sunu borom ay fay lii rek war na tax ñu góorgóorlu lii rek war na tax ñu góorgóorlu bu baax lii rek war na tax ñu gën a góorgóorlu Yeah. هنا وغدا يوما سماو تمور أخزني نما دملي أخزني غدل ما دملي يا سفي واجرم سما وسيلتي ليس راي هنا في خدنا قالك يوم سماو تمور بس بني رك جانت بي دين بي دي dindi asamaan si taal ko daji suuf si buddi garab yi ngacc géej gi mu keroog yi ak الذي هنا يوم السماء وخذني من الفجار والبهر عال إلا البر والأبرار أنت البشير فبشر سر الإسلام بها وكن منيرا بالإسلام أنت منير صلاة وتسليم من لا سرمدا على خير من تسكى إليه الأمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه في كل يقي وينير ما ذلك ولا سعد أسدل داما أني كل من سيجور على خلي صديقي رلوان ربهم كما فعلنا في الخالي حين يسيب على سيف الفاروق من ربه ويلا كبير كما خطب وهو وسير ومنه لسين نورين أبخير له كما فاز بالنورين وهو سبور على والد سبتين أغنى رلان كما بعد ربهم كما جادوا من جاد بسكه بهم أرتجي من مالكي نصره هلا سيسرت بتسليسي هنا تجور يسنونني وهو افترادي لديهم أثيرا له والكل سمع يهور أيارا أسارا ساديني والهوى لرب العرش جل أسير أسير إلى عرش البر والبر عابدا ولست إلى الفجار يولو أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي لا خير كريم مثيل تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصال فيه ينور تمسكت بالهبل mooy jafandu jafandu naa bi labli ci buum goo xam ne matti nii morati la du dagg du yaram ma mel ni gàddeem wékk ci tubaab yi di ma buute mbàyyi ni ko njoowaani ko day dafay damay wat waaye fekk lu ci waay joxe yàlla lay fay salaamaaleykum jërëngeen jëf kilifa yi ñu leen di saare daa ngeen jëf daa ngeen jëf waaw waaw kër sëñ Tuubaa ji kër sëñ Tuubaa ji kër sëñ Tuubaa ji kër sëñ Bamba la ñuy taxawal fii ci Yarax lu waay joxe ñu jël xeebuñu yéemuñu yéena joxe ñun ñooy nangu sunu borom ay fay ci barke borom Tuubaa taxaw leen tuuti sëñ Sam na waa ji na oto bi taxaw tuuti ngeen dugg ci marché bi ñu dimbali suñu bopp dimbali nit ñi ne ñu joxe ñu joxe ci liggéeyu sëñ Bamba bi kër sëñ Tuubaa bi ñuy taxawal lu ci waay am joxe xeebu ñu yooyu bi salaamaaleykum waaw waaw dugg leen dugg leen ci marché bi waaw waaw ndigal ndigal murid ndigal waaw waaw ma jaal ma jaal ma jaal ma jaal yàlla mi def téere bi tedd Seydina Jibril waaw waaw gën a tedd ci malaaka def def def def def lu waaye am joxeel xeebuñu lu waaye joxe yàlla lay fay ci barke borom Touba xeebuñu yéebuñu kër sëñ Touba gi kër sëriñ Touba fii ci waaw na ci ñëpp jàpp na ci kër sëñ Touba gi dañuy taxawal fii ci si def sa dërëm ba si million yaa na fayal boppam barke Cheikh Salim Mbacké ku julli dee mbokk taaliba yëpp rek te sëñ Tuubaa gi ñu bëgg a taxawal fii si Yaraax barke Cheikh Salim Mbacké Xaadim Mustafa waaw ñu ngi si ànd ak mbokk taaliba yëpp di sama mbokk jullit yëpp Tuubaa mi ngi lebal daa mën a fay waaw moo tax ñuy woo ñëpp ci liggéey sëñ Tuubaa bi rek ci kër sëñ Tuubaa gi ñi ñaan ci barke Xaadim Mustafa ku si def sa dërëm yal na ko sëriñ bi ful ku si def sa ñaar dërëm yal na ko sëriñ bi ful barke Cheikh Salim Mbacké kita lebih jullit yëpp waaw ah, kenn desul képp kuy murid saadeex yaraax rek génn nga tey ñëpp ñëpp ñu àndandoo rek fas yéene tabax Sëñ Tuubaa ndax comme liggéey moom booy liggéey ba dem ci haba xalifa mu ne man dina am rek jàppal dina am a baax a baax a baax a baax waaw ah, ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa ku des sa dërëm ku ci def sa ñaar ku ci def sa ñaar ko bi fulal ci barke ñaan ci barke mi amuñu ku ci def sa daa doon wax naan waqdi waadi lazina daamu fi xidmatin wa xablahum maaraama yal na la dal ci barke Ahmadul Xadim waaw ñu ngi woo jéeg bi ñëpp ñëpp ñu si woo duggee suñu tubaab bi laa ñëpp si li waaw góor waa leen góor القر آل القر آل وقت الأوائز الذين داموا في خدمة وخبله ما راموا سنتو أبو wax kon nag nañ liggéeyal Sëñ Tuubaa ba faatu waaw nañ leen liggéeyal Sëñ Tuubaa ba faatu àdduna kenn def fi lu gën a rëy liggéeyal Sëñ Tuubaa Hallelujah. دخل دخل منى دخل دخل واو دفتر دفتر دفتر من تجيب ولم يبقي ولم يتسارين maa lax loolu joxe yokk la waqtin awaa isina la sina joxe yokk jëf jëf lu waay jëf yaa ko moom lu waay jëf yaa ko moom waaw man lu waay am barke borom Touba lu waaye am lu waaye man. rek man tey ba mu faatu benn yoon ndax loolu moo nekk li sax njëkkoon nekk ci sama sama si xam ngeen loolu sax yàlla dogal ngeen baaxee leen ngeen am pastas boobu ndax murid pastas moo ko doxal bi ngeen am pastas boobu yàlla na si mbaa mu àggale lépp ba ngeen teg xeer ba ubbi ba lépp mars ba lépp ba ñi nga xam ne loolu noonu ko bëggee suñu Bàmba defe ko noonu waaw par suñu Bàmba bu ko defee ngeen nekk nekk fii rek ndax fépp liggéey suñu Bàmba la ndax jibaa ñoo jiite mutu yarax ñoo ko fi moom ngeen wax noonu ak euh, sëñ ñang bi ba bi ñang Ousmane ñang dafa a na ba Ablaye Faye ak Baye Mbayka ak Baye Moussa Bey ñoom ñëpp ñoo dajal woon nekk benn di liggéey ci rax ba def fi lii comme que ñoom def den fi ñu tutànke xamante ne suñu dem fa lañ ko ci bàyyi lu ci mel ni kër sëñ Tuubaa googu waaw yàlla na si maam mu not toxtal ci barke borom Tuubaa ñu ñëpp ànd ubbandoo ko loolu daal mooy wax ñu jégg lu baax a baax a baax te man nag su ma soñoon nekk ànd ci ak yéen fu ngeen nekk rek ma ànd ci ak yéen barke ba mu tuwaa neen xam ne sëñ Diouf wax naa ko fu ngeen nekk maa ngi ci biir waaw ndax ma waaw jumaa jën ji jumaa jën li ma jox moom ko man fu ma toll di ko xam ne ko jumaa ban koy sanc di ko fondement na bi xam ne fii laa ñëw di liggéey sama solde moo dugg ci biir euh, pot yi ñu samp nii solde ko liggéey damaa liggéey ba fay ko solde ñëw di liggéey ci liggéey bi ni ma suuko takk sama ndigg nii solde bu bokk wadd ci biir kër ba may ñibbi bàyyi Moussa Fall ma majal watul wasa bu ngaa nga jàpp ci ci yàlla jàpp ci rasulullah ma nga ci digg bi ñu demal guddee mbaay leen dinaa wax damay leen xool rek tamasabtu bil amri matini moratilan wa bil hurwatil wasalati anur bi sirtu min rabbi لرجل وهيدا وحول النسارى والبهور تمور هو الكنز والكبريت تعتاد لي هنا بيتا تنتهي نار حدا وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعب كريم للغادين يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لا من مجيد للكفور يليرو نتام توفتال نو كتاب تير يالا بي تير بي باب سينا جيبين نو كو يوري ملائكه رسول الله في البر من على كسي ومن خلقنا تفضيلا وجدت وجه من تقريمه بانا في سير مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تقليمه بانا في سار مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهري ربي أنا على ابتداء لسي اختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إصرارا وإهلانا دعوت برا رهيما نهم كرمنا في البهر والبار نهم الله مولانا كون بكل في يوم توشاة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فلتأب للهام يا سمدي إتمان خير وإسعاد وإسكانا ربيتني رب بعد إدعام وتربية أن يوم تربية إحجت سريانا ربيتني بهدا إدهاب وتروية عن يوم تروية يسجد شديانا ما كنت لي بهد ليق سخت لي أولا مواسئا بهد ما قد اخت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسخت لي اليوم إيخانا وبرهانا اسر قلوب النصارى يا قدير إلى نصري ورولي من قد آس أوهانا بكونك الواحد الخحار منفردا لحر أدانا على بصرى إدمانا نابتني أمس تنبيا أرى عجبا عند البديع الذي ما سال الرحمن نبتني أمس تنبيها أرى أجبا أنت البديو الذي ما سأل رحمانا يسرت لي أمس أبلي اليوم توسعة بها الأسم ما ترلى أو إحسانا أويتني بعد ما لا قد صاد أسلمي أسلمت وجهي إليك اليوم فاقد لمن خدوت له كهبا وحسانا دها مدادي قد أجي لقمة من تفسير لرر دا إنسانا أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه وسلم تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولبيانا وأني كف إسيانا حملتني ربي بي تكريم دون هنا في البر والبهر سيد رزقا وتغلانا ملك مي يا وهاب فوق رجاء اي والترد لي أحداء ومصلانا لي جد برزق علال طيب وقمي ما لست ترلا وإسرارا وإهلانا لي جد برزق حلال طيب وقني ما لست ترلاه إسرارا وإهلانا lii jot birisqin alaalin tayyibin waqini ما لا تطر أو هو إهلال ناجيت برا رحيما مخميا وله أمري وفوبل أرجو نصره لالا اذكر جوار يا ونا وخدم يا واسع المخنية ما زال ديانا اذكر جوار يا واسيني يونا وخدم يا واسع المخنية ما زال ديانا ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba bi nga xam ne moom lañu yaakaar benn jéego bu ñu soqi yal na yal na doon jéego yoo xam ne suñu borom dañu koy wutalal àjjana ak jéego bu nekk rek yàlla nañ ci yàlla fay na yàlla mën na ko te may gi ñu koy may wàññiwu ko dara kon nag yàlla nañ ko yàlla defal képp ku ci sonn rek yàlla na doon sa pexe àdduna ak àllaaxira barke Sëñ Tuubaa kontaan nañu te lii rek mooy li am solo sonn ba sonn jeex sonnal Sëñ Tuubaa ci gën yéen nag sonn sonnal ngeen ci mat a sonnal kon nag ñu ngi ñaan suñu borom Sëñ Tuubaa ñu doon sonnal yàlla nañu fay gën di fay barke Sëñ Xaadim jërëjëf def kontaan nañu liggéey baa ngi noonu lii rek la àdduna yàlla lépp lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu sàkk rek sàkk ko ngir kenn waaye la la cay tax a jot mooy mooy yitte rek yitte yitte mooy tax am mooy ñàkk yitte mooy tax a ñàkk yitte mooy tax a am waaye ñàkk yitte mooy tax a ñàkk li ñu bëggal Sëñ Tuubaa nag mi ngi aju suñu yitte rek buñ ci defee yitte ni ko bëggee noonu lañ ko amee te yitte jaa ngi fi baa ngi fi Assalamualaikum Serigne Touba ko malaka